الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسان فيدوبي كوشي تي في جسان فيدوبي نوره أول الوجود وجودا فهو أصل الأصول والأنجال بين لم يصل نوره بعين إلهي بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جنجي lu ñuy ubbee jataay ci gën ji lu ñuy ubbee jataay ci péyu Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu mooy barkeeloo lëf ci alquran ñu bàyyi ki nga xam ne moom lañ tuddee maamam Omar Niang Alxaaji Omar Niang mu jàngal ñu lëf ci alquran ñu ubbee ko jataay bi فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا الله يصطفي طفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم لكم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وفي هذا ليكون الرسول شهيدا شهيدا عليكم وتكونوا شهداء وتكونوا شهداء واعتصموا واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم الفاتحه mbokk yi at mi na ba egsi ci gàmmoo ak gàmmuwaat ñu dajeyaat fii ci pénc mi nga xam ne peppab suuf boo fi yëkkati tey laaj ko su fekkee dana wax dana la wax ne la firi nañu alquran ma fekkee jàng nañ fi xadiis yonent bi ma fekkee yéwénal nañ fi ñaar ñoo xam ne juboo ñoon ma fekkee dimbale nañ fi koo xam ne dafa soxla woon ndimbal ma fekkee daagu nañ fi dem ca jumaa ja dellu si ma fekkee daagu nañ ci dem julli ji ajjuma sikkar ajjuma wasifa ma fekkee penc mii nga xam ne mooy pencam Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu di pencu xam-xam di pencu njub di pencu bax di pencu kersa di pencam hormal di pencu tabe di pencu njambar di pencam top yalla top yalla ci lim bëgg yépp top ko itam ci lim bañ lepp di pencam wilaya di pencam xam-xam di pencam maarifa penc momu du wara jafé ci mom mu jur ay doom ñu tuddee seen bopp fityaanu sidqi wal ixlaas mbooloo moo xam ne dañu juddu rekk xamuñ lu mbaax jéemuñoo xeeñtu lu dut mbaax duñ bëgg lu lu baax ak ku baax duñ topp mukk ci gannaaw kenn ku koo xam ne ku baax la ci ni ko yàlla diglee ku baax la ci ni ko yàlla tere itam mu di ko bàyyi fitiyaanu sidq boobu wal ixlaas li seeni at di tuuti tuuti tibboo tibb ci Medina rek soo ko laajee dana la wax ñooñu ñooy ñan def nañ mbaax gu nekk ci dëkk bi wane nañ yiwee gu nekk ci dëkk bi def nañ fi teraanga yu nekk wane nañ fi ay teggiin jàng nañ fi jàngale nañ fi dimbale nañ fi kuy jàng dimbale nañ sax koo xam ne dëkkut ci dëkk bii ngir xam guñ xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ne itteewoo suñ mbir bokkoo ci ñun ñooy def buñ gàmmoo ba bisu gàmmuwaat jot te jar naa leeral Baye Niass radiallahu anhu benn xew la amoon mooy gàmmu ak gàmmuwaat li ci dess ñun talibé yi ñoko def ngir diko ziyara ziyaara suñ sëriñ waye Baye ñess gannaaw gàmmoo oté wu leneen musu ko dégg ba musu ko féké mi ci la daan fi fi la daan firé alquran su gàmmuwaat jotaan mu dem Kawlax def ko ci péncam mam Alaaji abdullah ñess bayam radiyallahu anhuma wala mu def ko ci kër ak bopam gam mom ci coopérative jami yalla yi di len fekk ndax kat buñ fàtte mukk ne am na ci nit ñi ñoo xam ne am na ci nit ñi ñoo xam ne ku leen fekkiwut ci li nga xam ak ci li la yàlla baaxee soo moytuwut duñ jëriñu te buñ taseeg seen borom mën naa am yàlla dina la laaj lu tax fekkee wala noonu ndax ñàkk itte ak ñàkk xam-xam moo taxoon bàyyi di toxal gàmmo di ko yóbbu di ko fekkee ji feneen shabaab boobu nag ñooy dajeeg kan ñooy dajeeg cheikh Mouhamadul Mahi ibnu cheikh Seydi Aliou Cissé xalifatu cheikh Ibrahima Niass xalifatul awwal di cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhuma mu jàng fii ci dëkk bii daara jàngi nii ci suñ kanam ñun yépp ñu di ko gis ba tari fi alquran an zahri qalbin di ko doomi dëkk bi di taree ci kanam mag ñi ci kanam kilifa yi mu tari ko tari bu rafet ñu jàngal ko fii ci géew yi ñu daan jàngee mabadi i mu jàng ko fii ba mag ñëpp óolu ko ñu yar ko mu yaru ñu jubbanti ko mu nangoo jubbantiku ñu xamal ko mu nangu koo xamal ba mu jógee fii dem Égypte jàngi dem ci diir bu gàtt mu jàng fa ba indi fa ay lijaasa yu kowee ci jaamiatul asar ñépp si jadut fen waye dafa xamne rek amna liggey bu koy xaar liggey bobu ban la liggey bobu ci la mamam serignam Cheikh ibrahim Niass nek radiyallahu anhu ci la nekkon ci la maamam alxaaji abdullah Niass al Kabir nekkon ci la bayam Seydi Ali sisi radiyallahu anhu al al awwal nekkon ci la mamam sax al hasan walidu Seydi Ali radiyallahu anhu nekkon mu ñib si Don ruknu ci arkanul masjid ponk ci ponk jumaa ji di mbokam ñepp di xariti ñepp di janggale, ci tukki ak ci teew kerem, demee kërëm gannaaw takusan gundet njët da nga gis ne daara jang fa mom ci bopam moy mubashara dars bi ko janggale, di yee nit ñi te lol ko def wajibat yi nga fekkoon na fi ay waajuram di ko def ci dimbale nit ñi ci laaye leen biir ci xettali leen ci awala leen yoon ci taxawu nit koo xam ne dafa soxla ko taxawu loolu yépp mi ngi ci yoon mooy nit ku baax di doomi nit ku baax Seyda Ali Cissé radiallahu anhu mooy wàjjuram wu góor Sayida Fatimatu Zahra mi nga xam ne mooy ndeyi pey bi mooy wàjjuram wu jigéen mu mel ni la Baye waxoon benn bis ne mbaax li muy baax baax ci doom nit ku baax la gën a bon la gën a baax astaghfirullah daf ne ba mbaax li muy baax baax ci doomi nit ku baax la gën a baax li mbon di bon bon ci doom bi nit ku baax la gën a bon mu mel ni kuñ ne sa ndey baax na sa baay baax na sa maam baax na sa maam mataar baax na soo baaxee rek wax dëgg yàlla da ngay firi la Baye Ñas firi waxoon moom yokkoon ko ci waxi arab yi la shukra illa ala alwaajib nit ku def lu mu war a def war nañ koo sant du nekk ku def lu la war waruñ laa sant bàyyi mu nekk ku def lu ko war rek lañ war a sant Seydi Maaxim yi def na li ko war jaar na ci ay loxo yu tedd waaye moom itam ba mu ca jaaree jaareele na ci ay nit bañ am lu leen leer ci ne moom mi ci loxo yu tedd la jaaree moom itam jaareele na leen ci loxo yu tedd kooku moom la shabab bii di géewal guddi gamu gu jot fi mu melni ko amon ngant sax do xamne ne dox na sa digeunte nga gamu wat gi ngantal yaram wala ngantal soxla boko deglo ci saa wala saa bi nga xamne ne dana ko waxtaan ak nit ñi da nga xam lu leer ndax waxam lepp yalla mu ne yonent bi mu ne Cheikh Ibrahima Niass mu ne te Cheikh Ibrahima Niass doyna ndax arab yu ne kullu sayd fi jawfil fara Baye Niass mooy géej gi nga xam ne ba léegi ñu oote ne xuus nañ ko sax seeni seeni dojoor tooyagut lu jeex mooy may ak yàlla gi nga xam ne moo des yàlla may ñu ko ñun Sénégal gu ñàkk yitte gii ci biir Saalum gii nga xam ne dañoo ñàkk yitte yàlla indi lu ñu bàyyi ñes radiyallahu anhu mu óor ñu ne ku dund ak moom rek bëgg ko hatta bo du talibem sax daga taxé té te mom moko waxal bopom sakantuma nak bëgg ko té bëgg ko yombut bëgg ko moy bëgg lim bëggoon yépp bañ lim bañoon lépp di def lim daan def di nga xamné ne lam daan def lépp kenn mënu ko waaye nga top lor ci lu bari ndax yalla may la taxé cheikh mohammedul mahimi mi shabab bu baax bi may tuddu jeunesse bu baax bi may tuddu nga xam ne soxlaay gone yëpp a ci seen bopp yi bëgg-bëgg gone yëpp a ci seen bopp yi mi ngi ci seen kanamit te ci àddina la nekk àddina bu ubbeeku ndax Medina gii tey lum tuuti tuuti tuuti fanweeri nationalité ñi ngi fi lum tuuti tuuti laa wax fanweeri nationalité ñi ngi fii yoo xam ne ñi ciy ñëw ñu bari dañuy ñëw indaale seen i jikko bala ñoo génn Medina Cheikh Ibrahima Niass gii danañ jël jikko yi Baye Niass yóbbaale fañ jóge woon mu mel nii ci leer lañ jëm si waaye duñ em rek ci leerlu waaye buñ leerloo ba pare buñ jelloo fañ dëkkoon dañuy leer dañuy leeral kon shabab boobu ñooy géewal tey Cheikh Mahamadul Mahi baaxoo nañ nag baaxoo nañ nag di ko déglu ci bis bii maa ngi ñaan ñi nekk ci mbar mi yëpp nañ ànd ak seen xel te bàyyi waxtaan wi te déglu xam-xam yombut gémmuñ gu koy wax goo xam ne itam xam na ni mu koy waxee ba mu dëppook sa jamono yombut yàlla defal borom tawfiq goo xam ne it ku mu wax ak nga bëgg a dégg da dégg ba tey yombut defal barke koo xam ne itam bu waxee waxam dafay ànd ak barke ba tey yombut kon ñun ñëpp nañ ànd nañ nañ ubbi suñuy nopp may ko temps bi ñuy toog ak moom li muy wax ñu jéem koo déglu bu baax ndax wax ji doo am azaka lu ci yonent bi waxul rek sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi waxuñ ko cheikh ibrahima ña sa ko wax wala cheikh ahmad tidiane yi ñooñu ñooy ulaayika qawmun ñooñu ñooy nit ñoo xam ne kuy déglu seeni wax te am éenaay topp ku laa wax sax doo texee di sàkkantumaa nag boo toppee wax ja cheikh mahamadul maahi ñu ngi lay tatagal ci tànt bii nga xam ne tànt bii sa maam fi la daan gàmmoo ca mbaaram ga tax ci mbaaram gattax ñëw ci mbaaram kirinting jógee ci mbaaram kirinting muy bâche yoo xam ne dañu daan gàmmo ba ci digg gàmmoo bâche yi bënn di sotteeku ci kaw taalibe yi di sotteeku ci kawam te fi mu toog du fi jóg radiyallahu anhu ñuy gàmmo ba yàlla def ñu tirbin keroog bi bàyyi di tirbin lu tirbin bii mi ma mel ni tey jataay bii ma toog tribune bu ñëkk ba booba ku ñuy wax Jaraaf juuf mooy ministre bu travaux public ci gouvernement bu ñëkk bu Senghor indépendance mu ñëw fi ci fukki fan yi gàmm ko dama bëgg tribune bii ñuy toog di tagg yonent bi bëggatuma kenn di ñu ko abal sakkantuma ay tubaab dama bëgg def loo xam ne daa lay doon waxtu wu nekk mu nekk ci bayal bi suñ bëggee tagg yonent bi am fuñ ñu toog bi ñëpp di ci déglu mu ne ko ndax am nga nit ñu la liggéeyal bàyyi na ko taaliba yaa ngi nii tribune bu njëkk ba ci fukki fan yi gàmmu lañ ko tabax bàyyi gàmmu ci daan nañ teg ay barigo di teg ay xànq ci kaw ñuy dox bàyyi di dox doxam bàyyi amul taxaw amul geestoo amul fakkatalu ba Cheikh Mouhamadul Mamoun indi ñu tànt bii muy tànt daa im bi mu ko indee ñi ko mës a indi ci Sénégal ñëpp dañ ci daan ut alal di ko luye li ñuy takk jabarak li ñuy def ay po li ñuy def ay caaxaan moom mu indi ko joxal na ko baayam ak sëriñam haddiya Sénégal yëpp nañ tànt bi bi ko fi njëkkee tànt am na ñu bari bi ñëwee dañu jëf ju mel nii ko mën a def ngir yàlla waaye ki ko mën a def xol bi mu amee mi ko royee ci sëriñam benn waaye mos na wax ne pàkk bu em ni ko meuna reddel yalla diko di jakka def kay ci neeg bu tuti bi sa xol rëy na lool ma ne ko lim amé du xol leneen la amé Cheikh Mahamadul mahi ñing lay tatakal bon ci tante bi or nañ ñu ne balañ fi génné yalla nañ ko jëriño dang fi wax lu bax yalla nañ ko dégg taré ko dang fi netli sa wax imam dang fi netli sa wax da nga fi nettali wax yonent bi da nga fi nettali waxi Cheikh Tidiane loolu yépp nag yàlla na ko taalibe yi dégg ñun ay taalibe la ñun ñëpp yàlla nañ ko dégg te yàlla nañ ko jëriñoo lu ciy teggiin yàlla nañ ko jël lu ci yar yàlla nañ ko jël lu ci mbaax yàlla nañ ko jël lu ci tabe yàlla nañ ko jël lu ci kersa yàlla nañ ko jël lu ciy sutura itam yàlla nañ ko jël ci barke yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ñuy géewal fi ci Medina Baye ci barke Cheikh Ahmad yani radiyallahu anhu ci barke Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu ñi ngi tatagal monsieur le ministre ministre premier ministre monsieur Souleymane Ndéné Ndiaye di doomi Sine Saloum yaakaar naa ne jataay bii moom tumuranke wu fi jataay bii moom du wax ne guléet ma soog fee ñëw du wax ne yii kanam yi may gis fu ñu dëkk ak fu ñu jógee ñëw na fi ci waxtu wu nekk man seetlu naa lu ëpp ñaari at bi mu nekkee premier ministre bu ñëwaan ajjuma julli si ajjuma man mii maa koy xajal mu toog jox naa ko sama place ba sonn ci jumaa ji xajal ko mu dend ak sëriñ bi ma yeetal ko ne ko premier ministre ñëw na Souleymane Ndéné Ndiaye yoon wi mu fi mujj dégg mook imaam Cheikh Tidiane Cissé mu di ko nettali maamam joo xam ne dafa masa lal jumaa imaam Cheikh na ko ñu ngi lay xaar ci jumaa yi baay jii gannaaw sama mos na koo def ñu ngi lay xaar ci jumaa ji yow tam nga lal ko mu ne ko ñaanal ma yàlla bëgg naa ko danaa ko def ñu ngi koy tatagal ci jataay bii eh, jataay bii géew bii tey géew yi baayam la géew bii tey géew yi ay magam la géew bi tey géew yi ay sëriñam la yàgg na fee ñëw te moom am na lu ko leer ci jataay bii jataay bu barke la ndax mës ta jógee fii ci Medina dellu lu dul yàlla dana ko jox loo xam ne dana ko yëg ne bi muy dem yóbbaale wu ko waaye bi muy ñibbi yóbbaale na ko kon ñu ngi koy tatagal ci jataay bii fityaanu sidq nag ah ñu ngi tatagal ba tey sëriñ Baara Mbàkke muy seen doom mbokk di seen mbokk eh, ñun kër Maam Alaaji Abdoulaye Niass gii rawatina Cheikh Ibrahima Niass bàyyi dafa mës am benn bëkk néeg ñu di ko wax isxaq radiallahu anhu daf daan wax ne bàyyi ni ko yàlla bindee ni mel nii ñim jaaxal ñépp dañoo xamut bàyyi mooy kan am ku ko laaj ne ko imam Hassan Cissé laaj ko ne ko lan la yoo foog ne looloo tax mu ne bàyyi lu yàlla jox nit rek gërëm na loolu xam na ne yàlla la ko jox du ci am benn inquiétude bàyyi du tëdd mukk ci ngeenaayam di jaxlé ci may gu yalla may nit lu tax yalla di ko may motax xolam dafa selon xolam dafa wéroon motax mu bëgg jàmm yalla yépp na waliyu yalla yi sëñ baara ñu ngi lay tatagal sëñ Moussa mbacké di set ci sëriñ Bachiru mbacké nga xam na relation ak Cheikh Ibrahima Niass ñépp xam nañ ko xaritam la woon ñu xaritoo ci xam-xam xaritoo ci bokk dëkk ci réew mi xaritoo bokk ci dëkk ci région bii xaritoo di ñoom ñëpp ñuy liggéeykat yoo xam ne seen seen njaatige mooy yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci buntu yàlla ñu xaritoo ci loolu moo tax ñu ngi lay tatagal fii yow itam sa yu sëriñ sa yu bàyyi Ajaan Jàlloo di douanier shabab bi jeunesse bi organisé li ñu ne ñi ngi lay tatagal ba tey fii ci Medina Baye di la ñaanal yàlla liggéey bi nga nekk yàlla la ci yàlla musal te la ci am promotion bu kowe fekk uy gii nga leen uy seen jataay bii doo ci jógee mukk lu yàlla dina la wan ci sa mbir loo xam ne yow ci sa bopp sax dana ëpp sa njortu bu soobee yàlla ñu ne ñi ngi gërëm ba seen mbokk seen doomi bàyyi di rakk ci ñii ci ñu bari ci ñoom muy Mouhamadul Moustapha di doomi Cheikh Seydi Arabi Niass di xafit di sët ci alxaaji Mouhamad Zeynab ñu ne moom lañ cëralee bis bii ñoom bala ñoo uti lambi feneen ñu ne gis nañ ko muy xale waaye di xale boo xam ne li ay baayam ak maamam nekkoon weddiwu ci dara mu ngi jéem a taxaw roy ci seen gannaaw di def li ñu daan def di wax li daan wax di dem fiñ daan dem di joxe fiñ ci liñ daan leen leen taxaan di joxe ñu cëralee ko bis bii ngir ñaaxee ko seen bopp ñaaxee ko ñi mel ni moom ci ne yëf yi nii rek la la Cheikh Mbacke bu soo waxoon baay ne ko doom ju baax dafay teral ay baayam ñu yaakaaral ko barke wa illa fala la loolu Cheikh Mbacke bu soo al muarrixul kabir la ko baay tuddee historien bu mag ba di borom xam-xam ñëpp xam ko ba mu baye bàyyi leetar ba ko bàyyi mu tontu ko daf la baye gis na addee ji ma ak wax yu rafet yi nga wax ci man dom ju bax ni lay def fay teral ay bayam ñu yaakaaral ko barké bu dul kon batei Mustafa Moustapha do doomi baye ñu ne ñi ngi lay tatagal ci bis bi di la wax na taranga ji ñu la jox suñ la ko joxu itam bu nee ci sa loxo yow da nga leen ko jox ndax yeen ñepp yelloo ngeen ko motax jox nañ mbir kako mom cheikh mohammed al mahi duma jël temps bi talibé yi yow lañuy déglu nopp yëpp ubbeeku nañ xel yëpp sell nañ bët yëpp janañ jëm ci yow macha allah ni ngi la ñaanal yàlla yàlla na yàlla defal tawfiq li ngay wax yàlla bu mu am ci nopp yàlla na dugg ci xol yi ya rabbi allah li ngay wax yàlla bu mu am ci nopp yàlla na dugg ci xol yi su duggee ci xool yi yàlla bu mu em foofu yàlla nañ ko jëriñoo bu mu em ci ñu jëriñoo ko waaye yàlla nañ ci mën a jëriñe bi jaahi nabiyil mustafa sallallahu alayhi wa sallam allahuma salli ah mbooloo mi léegi cheikh seydi arabi bi ñuy wax egsi na ci jotaay bi moom itam mook rakkam cheikh Serigne Baye ñes di doomu cheikh Ibrahima Niass ñoom ñaar ñoo fi nekk ci ay baay xanaa jàmm yàlla bu xeb bii di wax ak yéen ñu ci des suñuy doom lañ ak suñuy jarbaat lañ ak suñuy sët lañu waaye ñoom ñu ngi nii tey toog ci kanam seen pegg seen jarbaat Cheikh Mahamadul yi déglu si xam-xam fekk si ko ndax xam-xam kat ku ko mën di wax ak koo mën a do ak koo mën a do ak foo mën a toll ci atit danañ la fekki danañ la déglu te ku bëgg a jëriñu it dana jël la ngay wax bu demee jariñoo ko kon Sidi Cheikh Sidi Arabi yi itam ñu ngi lay tatagal ci jataay bi di ñaan yàlla ñun ñépp liñ fi wax yàlla nañu ko jëriñoo ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin ñu bàyyi ko alxaaji Malick euh, Sow mu jàng benn xasida xasida bi nga xam ne ci la Cheikh Mahi bëgg waxtaan tey di xasida boo xam ne Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu moo ko taalif yaakaar suñ ko jàngee bam mu firi ko duñ jógee fii mukk dudul ku ci nekk ci ñun da ngay yëg ci sa bopp loo xam ne bi ngay ñëw fii indaale woo ko ci mbaax ak njëriñ عجبت لصب مغرم القلب ملاعي قريب من المحبوب بالبعد مداعي عجبت لصب مغرم قلبي ملاعي قريب من المحبوب بالبعد مجاي وذلك إبراهيم يهوى محمدا وأمر وجود الكون غير موقع وذلك إبراهيم يهوى محمدا وأمر وجود الكون غير موقع ولا زال يشكو البين والحال إنه حبيبي معي في البيت أو وسط بلقاع إذا لاح برق شوق القلب أو حدا له متغن كالحمام المسجع تراني وإني غائب فيه حاضرا أحاكي رقودا ساهرا فوق مضجعي بدائي الذي أعيل أطبا انفصال من يواصلني في كل تيها ومرباعي فتيك فتيك ما سباني يغيدها فغر المعالي آخذات بمجمعي مواجهة الهادي والشم أريجه وفهم الذي يوحي ويلقي لمسمع كذا رفع رايات الحنيفة معلننا بإبطال آرى كردنا آل المضيع أزيل خلافا بين قوم محمد فيربطنا التوحيد من كل موضع أزيل خلافا بين قوم محمد فيربطنا التوحيد من كل موضع فنمشي على نهج الأرض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 ñu ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam ci gën caa rafeti nuyoo nuyoo boo xam ne ñu ngi koy sox jaaraat ci nuyoo bi nga xam ne suñ nijaay Cheikh Mouhamad El Bachir nuyu na ko gan yu tedd yi nga xam ne ñoom lañ am fii muy njabooti Cheikh al nga xam ne ñëw nañ fekkee jotaay bi nga xam ne tumuraankooñ fi ndax seen kër lañ génnee ñëw ci seen kër ñu ngi leen di wax ne marhaban bikum ñu ngi tatagal suñu mbokk suñu xarit eh, PM Souleymane Ndéné Ndiaye bi nga xam ne comme ni ko Cheikh Bachir waxee xam na Medina Medina xam na ko bëgg na Medina Medina it bëgg nañ ko ñu ngi nuyu kilifa yi teew ci dëkk bi ci njiital Cheikh Bachir mi nga xam ne moo amee woon kàddu gi léegi ak rakkam Cheikh Serigne Mbaye ibnu Cheikh ak rakkam Cheikh Seydi Arabi ak doomam di jarbaatam Cheikh Aboubacar ibnu Cheikh Alxaaji Abdullahi di nuyu mbooleem seen rakk yi nga xam ne nii ñoom ñoo teew fii di ndokkeel jamiya bi nga xam ne ñoom ñoo baaxoo di def lii at bu jot di ndokkeel tim suñ jarbaat Muhammadul Mustafa mi nga xam ne moom lañ ko tuddee tey di sant yàlla cant goo xam ne mu ngi bees du del di di di di dolleeku feeg may yaa ngi bees ngëneel yaa ngi bees di dolleeku xasida bi nga xam ne moom lañuy jàng tey mu ngi nekk ci diwaan bi nga xam ne mu ngi tudd manaasiku ahlil widaadi fi mahabbati xayril ibaad nga xam ne dëgg-dëgg way bëgg ñi am nañ seen mihraabi bopp fi nga xam ne ñoom ña ngi fay jaamoo yàlla ci mbëggeel gi nga xam ne bu fekkee ñi bëgg ci zaahir sax dem nañ ba àgg ci bëgg jaamu yàlla ca lañ bëgg waaye mbëggeeli yonent bi sallallahu alayhi wa moom ku nekk xam na ni ci jaamu yàlla la bokk waaye jaam yépp nag àgguñ ci mexraab ak mbëggeeli yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne góor yàlla yi ci lañ rawante xasida yi di ñu tënkal ay jaaruwaay ak i guddi ak noki nokki ak binni ak jinju yo xamne maulana cheikh ibrahim radiallahu anhu dundunako ci xaalam ak yonantu bi sallallahu alayhi wa sallama xaal boobu nga xam ne ne xaali maa la aqla yudrikuhu salla alayhi ilahi munzil al-kutubi ne al-haqi halatul amini ka xaalatihi maa al-mustafa وعلى المصطفى المختاري نور الاباطحي كي وخنا سما حال اك يوننتبي خل منوكو خم مو مج رك جولي سي يوننتبي كون كوكو بغا دغلو دوكو دغلو خل رك دونتي سوخنا خل دغلو لا خل دغلو لا خول دغلو لا روحو bo mané romb roxo nga dem ci sirru nga déglu ak mbot jotuma xol qasida bi ni ko wara xolé waye dama ci don khatir mu melni borom lisanam da fay wax ne inni uhibbu wali fi lxubbi mamlakatun udiruha bayna ushaaqi majanini سحو سكارى حيارى سحو سكارى حيارى مهتدين وفي زي المحبة في سيم الصلاتين دابا دون خلال رك قصيده بي نياري بيت روتي مان مملني باي دا فاي اني احب ولي في الحب مملكه اديرها bayna ushaaqin majanini mu ne dama bëgg yonent bi waaye dama am maanaam nguur goo xam ne nguur ak mbëggeel la ñi ma koy séddale nag mooy ñi bëgg ba dof ci mbëggeel waaye lañ dof dof noonu ci mbëggeel comme yaram bi lañ amee saxwin sukaara xayaara muhtadina wa fii ziyil mahabati fii siima salaatini ànd ak loolu yépp ñi ngi xoole andak sen seen gog yeb ñi ngi mandi andak sen mandi gog yeb ñi ngi gelem waye andak sen seen mandi gog yeb ñi ngi jub di jubal andak lolu ya ngi leen gis ñi ngi sol ay mbalaani mbëggeel waye nak ñi ngi sol ay mbalaani bur dafa commencé qasida bobu te wax na ne wéyam yi mooy samaratu awqaati xayaati wa xarsi wa tijaarati wa xisni wa manjaati ci diwaan bi nga xam ne addiyal na ko doomam cheikh alxaaji abdullahi di ko wax ne ko sama wëy ñooy meññ ci sama dund ñooy sama tool ñooy sama commerce ñooy sama tata gi nga xam ne ci laay muccee ñaanal ko yàlla mu jox ko la ci nekk ci ay mbóot ak i junju waaye tim ñaanal yàlla képp koo xam ne yaa ngi koy jàng ak xol bu sel kon nañ préparé xol yi ndax ñi mën a jël junj yooyu junj yi xéeme na ba borom bi nga xamee ne mooy commencé wéyam bi ajibtu la commencé maa ngi xéemu ci lan lay xéemu li sabbin ci aji bëgg sabaabatu mooy riqatul qalbi inda shucuuri bilmahabati wa ixtiraaqihi loolu mooy sabaaba ibul ala waxoon na ne maa bayna marri arbaina min siban ma baada mari xamsa asharata min siban wa ma baada marri arbaina sibaau mu ne gannaaw nit ki bu amee fukki at ak juróom dootul xale waaye cofeel gi nga xam ne ni ku am juróom ñeent fukki at mu ne dootoo dootu dal moom moo toll foofu waaye ki bëgg li nga xam ne boo koy bëgg nooy màgg di gis muy gën a màgg noo màggee di gën koo bëgg motax borom waxon wax sax ci 40 waaye ci 50 la waxon banul bid'i wal khamsuna hal li bukaa'ihim li shawqin dawan kalla kadhalika ma biya ala fa'zaruni aw faluumuu falam akad umayizu بين الحالتين لحاليا ومن كان يدري المنح منا وعاقبا يرق لحالاتي ولو كان خاليا باينه باين با ام جوروم فكي اتاك juróom-ñaar wala lu ëpp di jooye ngir mbëggeel ndax kooku njooyam yooyu ak mbëggeelam googu ak cofeelam googu ndax mën naa am saafara mu ne déedéet ta am saafara mu ne loolu moo ma dal waaye mu ne ku xamoon mun xamin naa mi ma bëgg mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy muhammad xam ko ci melokaanam yooyu xam ko ba xam ne mooy aaqibu mooy yonent bi mujj bàyyi mu ne da nga da nga ma jox ngant man mi ko xam danga xam ne dëgg-dëgg lu nit war a bëgg ci kii ba dee ci mbëggeel ba dee ci dekk ci mbëggeel mu ngi ci lu nit war a jooy ba am juróom fukki at ak nangam di jooy ba tey mu ngi ci kooku ndax léppam lu bëggula waaye léppam luñ war a bëgg la rawatina nag ci ku ko xam ñi ko doon melal ba ci Ali ndax ba ci Abu wax na ne gisuma njëkk ma koy gis gisuma it gannaaw bu ma ko gisee ku gën ku mel ni yonent bi sallallahu alayhi te boobu ci taari zaahiram lañ doon melal waaye taari zaahir boobu tuuti la ci taar ak yonent bi nga xam ne moom la làmboo ci baatinam moo tax bàyyi ne xéemu naa ci aji sopp muxramin kay aji bëgg muxram mooy koo xam ne mbëggeelam dafa dafa tàqoog moom comme ni nga xam ne koo ameel bor bu mu la mën tabaxal ni muy tàq ni muy tàqoog yow لول موي غرام مغرم القلب مولعي كي قبن كون سوبلو قريب كي اجي جاجي من المحبوب تي كون سوب كي كيم كيم بغ موجعين دي كون سون لو نك كون متي لو بيل بعد تي تي سوري مون دما هيمو تي اجي بغ جيغا خامني دا فا جاجي كيم بغ waaye mu ngi sonnee cofeel sori jege ba pare di sonnee cofeeli ku sori loolu moo tax muy xéemu ci mbiri boppam loolu la beneen waykat waxoon ci pay yàlla bi xam nga pay yàlla bi demut fenn jaam yee dem fenn bàyyi radiallahu nee na alxaybu xaybaani xaybun xaaba an ka wa xaybun xibta an faddu ñaari faddu la lu fàddu loo xam ne daf laa fàddu ak lu fàddu loo xam ne yaa ko fàddu lu fàddu loo xam ne daf laa fàddu mu ngi mel ni ni dakaar mel ci képp kenn ku te toog fii tey kooku fàddu la goo xam ne nii daf laa fàddu waaye fàddu goo xam ne yaa ko fàddu loolu mu ngi mel ni ku fàddu péeb yàlla bi te mënuloo dund lu may ci yàlla bi koku yow ya fàddu waye xam nga ne yàlla demu fenn wo wo maakum ayna ma kuntum la yàlla wax yalla ngi ànd ak yéen fu ngeen meuna nek motax ben arif waxon ne wa min al ajaib wal ajaibu jëmmatun xurbul habibi wa ma ilayhi wusulu mune bokku na ci li heme te li heme bari lol moy soppe bi ki yàlla jage lol te man ta ag ci mom soppe bi jage lol te man ta ag ci mom xam nga aarifin yi ak ushaaq yi wax nañ loolu ci xaq yàlla tabaraka wa taala ndax ñoom ñépp ñi bëri ci ñoom jeex nañ ci xadam ndëgg bu njëkk boobu nga xam ne jaam dana ci jeex ba dootul gis dara lu may yàlla tabaraka wa taala te duut lu tumuranke ndax dund saxaaba yi sax jàngale na ko ndax sayduna bilal xam nga ne bañ koy mbugal pour mu génn ci lislaam sangam di ko mbugal di jël ay mool di teg ci dënnam ci ron naaj bi di ko xiifal ahadun fardun samadun la doon wax yëgut mbugal giñ ko doon def bàyyi mu ne lu tax ndax boobu sayduna bilaal mu nga jeex ci péeb ahadiyatu jeex ci péeb ahadiyatu ba foo nekk mën a teewlu yàlla tabaraka wa taala loolu góor yu bëri àgg nañ ci ci sufiyanke yi waaye nag jeex ci péeb yonentu bi sallallahu alayhi wa sallama ba foo toll di dund ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy wax ju màgg gi ci moo tax lëkkalee wax ñu bëri wax nañ ko abu madian al gaws wax ne wa min ajabin anni axinnu ilayhim wa asalu anhum man laqitu wa hum maci wa tabkihimu ayni wa hum fi sawadiha wa yashkunna wa qalbi wa hum bayna adlu'i abu madian al xaws mu ne bokk na ci li man may namm may namm ñooñ péey ba te fekk ñi ngi nekk ak man ku ma gis di leen laajte te ñi ngi ànd ak man bokk na ci li suma bët yi di leen jooy te ñoom ñi ngi dëkk ci sama bët yi waaye bokk na ci li may tawat sori gi ma leen sori te fekk ñoom ñi ngi ànd ak man loolu la bàyyi wax ne mu ngi xéemu moom ci dëkk ak yonent bi salallahu alayhi wa sallama mu jege ko lool ba pare nag muy jooy sorihaay gi ndax ku wax ci xaq yonent bi salallahu alayhi wa sallama ne raaytu rasulallahi jaada bi bugyatihi wa ma gaaba anni dahra barran wala bahra bàyyi daf ne gis naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu may ma sama càkku te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam masu maa fàddu masta tàggali koog man sawaaun maa ngi ci géej walla ma nekk ci jéeri te ñun doomi aadama yi ci jéeri géej géej gi rek ci la ñuy dund diggante jéeri ji ak géej gi yonent bi masu fee tàggali koog man moo tax dem na ba foo xam ne bu yonent doon tàggali koo dana ko sib waaye dem na ba Paris mu wax ne raaytu rasulallahi jahran wa yaqdatan bi baariz hal zaaka almahallu mahalluhu ne gis naa yonente bi salallahu alayhi wa sallama ci jah ak janoo ca Paris bàyyi mu ne ndax Paris place yonentu la salallahu alayhi wa sallam kon jar naa xéemu koo xam ne li nga dëkk ak li nga dëkk ak moom ngay namm kooku mooy kan wa zalika kooku le ibrahimu mooy ibrahim ki nga xam ne dafay dëkk ak soppeem ba pare di namm soppe bi mooy ibrahim yahwa dana sopp muhammadan muhammad ibrahim mi nga xam ne bëgg na yonent bi salallahu alayhi wa sallama wa amra wujudi lkawni gayru muwaqai ibrahim mii bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te fekk bàyyi mu ne mbiri àddina bi sax tàbbeegut àddina amagut inna nii qabla albaraaya xubbuhu shuglil janaani bàyyi nee na man maay ki nga xam ne njëkk yàlla di amal mbindeef yi mbëggeel yonent bi moo doon suma soxlaay xol bi man ma kooku fan la neewoon moo tax dafa mas a bind benn قصيده طالبي ام بيت بنشي لاجته قديما فربي المصطفى عبده الحق ولي في جناب المصطفى الحب والشوق نينا باي ليغا بوغا واخ نون لا قديما فربي المصطفى عبده الحق فك دنج دون سوري تا جارول سوري باي نلن لول موم يين لي ورونا لاج تي دو لولو نده يالا بغنا يونتبي صلى الله عليه وسلم نجهك موي بغ دارا loolu moom ñëpp xam nañ ko yàlla bëgg na yonent bi njëkk place di am njëkk jamono di am loolu moom dootul wax ji kon li ngeen waroon a laajte di loolu mu ne leen li ma wax mu ngi mel ni xaylaanu mayyita mashruufum biha mu ngi mel ni nga indi mufrad xabarale ko jumla li borom alfiye wax jumlatan wa mufradan yaati wa yaati jumlatan xaawiyatan maana alladi siqat lahu mu ne loolu xéemewut kon li ngeen waroon a laajte laajtewu leen ko mu ne li ngeen waroon a laajte mooy li ma mujj a wax wali fii janaabil mustafa al xubb wa shawq li ngeen waroon a laajte mooy oote gi ma oote ne man bëgg naa yonent bi salallahu alayhi wa sallama ca jamono jooju nga xam ne ca la yàlla ca la yàlla tànnee yonent bi salallahu alayhi wa sallama mu nekk jaamam loolu ngeen waroon a laajte waaye du laaj bu njëkk bi laaj bu njëkk bi du laajte ndax fa rabbi nga ne la nga ne ah ci ñuy jàng naxu nañ ko déglu al mustafa nga ne ah nga ne abduhu kay jaamam alxaqu mooy dëgg bàyyi na kon wax ji du loolu li ngeen waroon a laaj tam mooy li ma ca teg wali fi janaabi almustafa alxub wa shawq oote gi ma wax ne man oote naa bëgg yonantu njëkk tëchtit di am njëkk place di am njëkk jamono di am loolu ngeen waroon la laajte waaye du li ngeen war a li ngeen li ngeen laajte moom ngeen waroon a laajte yonent bi salallahu alayhi wa sallama kii wax ne ana sayidu waladi adama wala faxra bàyyi ne kon ubudiyatoom googu nga xam ne moom lay tiitaroo mooy ne nekk na jaamab yàlla nekk na di sang doomi aadama yépp waaye bàyyi yonentu ne moom tiitaroowut loolu bàyyi na lan la yonentu bi tiitaroo mooy nekk gim nekk di jaamu yàlla moom lay tiitaroo kañ lay nekk jaamab yàlla mooy bu teewee ci péeb yàlla bi kañ lay nekk sang bu fi jaam yi nekkee moom nekk ak yàlla nekk jaam moo ko gënal nekk ak jaam yi nekk sang te moom moo wax ne kuntu nabiyan aaliman bi nubuwati wa aadamu bayna al maa'i wa tiini nekkoon naa yonantu bu xam ne yonantu laa fekk aadama mu ngi ci diggante ndox ak ban kon wax ji bàyyi ne li ngeen waroon la laajte di loolu waaye li ngeen waroon la laajte li ma wax ne man maa bëgg yonantu njëkk jamono di am njëkk place di am loolu ngeen waroon la laajte